maître Ousmane Seye xëy nañ ko tàggee. maître Ousmane Seye waaw man nag miinu ma ko woon bu baax waaye daal ñu ngi ko ñaanal sunu borom xare ko àjjana te jéggal ko. amin allah alaaji waaw macha allah na solo ñu ñaanal ko suñu borom xare ko àjjana. Mm-hmm. Euh, waaye léeg-léeg euh, yu mel ni bu amee. Mm-hmm. Euh, dañ ci war jàng rawatina ñëpp ñi nga xamante ne bii ñu ngi ci monde politique bi. Mm-hmm. daal jàng ci yu mel ni te xam ni àddina du dëkkuwaay eh, kër la goo xamante ni gi dañ fiy jóge ñun ñëpp ba tax na am na yu bari yoo xamante ni bi eh, boo fi nekkee mhm. eh, defaral sag nekkin ci àdduna bi mhm. defar sag nekkin nag ngir waajal sag ëllëg mhm. donc pareen saay da ngay gis nit ñi di xëccoo way laa nga gis nit ñi di toog ci tele yi di wax loo xamante ni bii lépp rekk ngir am amu àddina yooyu nag nit ñi nañu jàng ci nit ki bu demee mhm. ñu delloo si seen xel daal di xoolaat seen toogaay ak seen taxawaay seet ndax am na yu bari yoo xamante ne bi jàpp naa ni jaru ko mhm. donc nañ ci na nit ñëpp di delloo si waat daal seen xel ci mbir yi mhm. waaw ñu ngi koy ñaanal nag sunu borom xale ko àjjana euh, sunu boroom mën na ko yàlla na ko def amin incha allah mi ngi noonu jërëjëf